Thank you. waaw ba tey ñu ànd ak yéen ci festival troisième édition Xeman Njong fa Faajut lii ngeen di gis suñu ginnaaw nag mooy daj dëpp gi parce que fii mooy foire bi foire bi nag ay produits yoo xamante nii ay doomu Joal ñoo ko defar ñu formé leen fii ci dëkk bi produit yi fii lañ ko defaree maanaam consommé local ba tey jii may wax ak yéen bu ñu leen wanee da ngeen naan lii est-ce que am na Sénégal oui am na Sénégal surtout fii nga xamante nii mooy Joal Fadiouth suñu bàjjeen ni suñu tante yi liggéey si liggéey bu am solo kon nak dama bëgg ñun ñëpp ñu andando gis produit yi benn par benn di ma leen ko waxé sank rek culture la art lepp mu ngi ci biir ndaxte euh, ki nga xamanté ni moy sunu tante ba Thiello mom dafa yaga yëngu si cuub tay ji ni dama jël exemple ci moom euh, mo ngi fi andi fi ay produit ku wax cuub wax tamit euh, culture tukulóor ak Mali waaw ndaxte yére bu ñuy sol la ñu defaree ko fii ci réew mi euh, surtout fi nga xamante ni mooy Joal fii lañ koy cuubee ak ay saabu ak ay jus ay euh, euh, comment dirais ak ay këriñ yoo xamante nii fii lañ leen formé defaree ko fii donc nag ñëw leen ñu won leen ànd ak yéen ngeen gisal seen bopp champion baa ngi nii gis nga yàbbooy nii rek nga koy def stade lii mooy éco-charme lii mooy environnement waaw ñun ñoo nekk. nii bàyyi la ak archite. waaw dañuy composé dañoo am machine ñoo nekk sàmm suñu environnement kër jigéen ñi nekk fii ci côté jumaa ji mag ji foofu la ñuy liggéeyee foofu mooy kër jigéen ñi loo fa bëgg rek ma nga fa. këriñ gi moom ngay taalee nii sa cuuraay. moom ngay taale cuuraay li moom ngay ataaya moom ngay lakke sa jën moom ngay lakke sa yàpp bu la neexee sa togg ci sa ceeb lii ban lañu boole ak ñax comme dañuy bañ gor mat gor garab la ñuy bañ ñu dugg si àll bi gittax yi nga xam ne nii moom la ñuy utiliser toog bay nañ ko ba pare moom la jël lakk ko boo ko lakkee boole ko ban bi waaw. du ñu dagg amul dara du saxaar du seet parce que dama yag xamni ni que jigéen ñi lu dugg ah du tiaxan lañ lay duggal té elles reçoivent de très bonnes formations té li soko ko déggee ñoo ngi participer ci préservation de l'environnement ñun bari wuñu garab déjà on est dans un environnement sahélien so gisé ñu jël di valoriser déchets yi nii di ko def nii faut nga encourager leen té li ma ci djublu du man utiliser ko sama kër ku ci dam la may la pour nga parce que c'est ça qui est important message bi message bi. jël presse rek ñu ngi ci foire bi ay doy nga gis lañ ko ci dëkk bi kon comme niñ leen ko waxé ñew leen fi amna ay lem. alaykum nuyu nañ leen. yéen a ngi jàkkaarloo waa Joal Fadiouth TV ñu bëgg nga présenté ñu produit yi rek. waaw waaw ah, bii bi kii la. sirop jinjeer la. waaw sinjoor pas pas jus mais sirop la. waaw sirop la. li faj li muy faj li muy faj bëri na day faj estomac. wax dëgg yàlla day jox cawarte daal waaw. <laughs> yaa plein de vitamine. <laughs> waaw bii moom confiture patate la. waaw ah, ah. waaw lii confiture la waaw buy la am ak ak citron moom lañ ko composé waaw ah. lii pasti la pasti jinjeer waaw mën na ataaya mën na tamit nga màcc boo añee ba pare da ngay gaaw a digérer waaw pasti bi la lii confiture xaal la pastèque waaw xaal lañ ko defaree bi waaw bi xaal lañ ko defaree bi mooy sirop lingom bi ah bi siro la waaw waaw li ngom bi la parce que ngeen def ba fan ngeen di defaree yii nii waaw ah, lii ñu koy defee parce que koñ ba lañ koy defaree jusqu'à Joal jusqu'à Joal waaw Joal Fadiouth waaw consommer local Joal Fadiouth Europe lañ ko doon gis léegi am Joal ah, waaw Joal merci beaucoup kontaan nañ ba tey rek ñu dem presse waaw maman nuyu nañ la fay naa yaa ngi si Joal Fadiouth TV ñu bëgg rek nga présenter ñu produit waa man maa tudd Hélène Sonko di liggéey si benn association bu ñuy wax association Mbogoyaay di liggéey lépp lu euh, produit halieutique di liggéey di reboisement lépp maa boo gisee éco charbon bi lépp ñun ñoo koy liggéey samay produit ñu ngi nii lii crevette séchée bi la am naa pagne séchée bi mu ngi nii en même temps am naa huître bi encore yëpp séchée la ñuy ñëw si samay produit lii moringa la mu ne ngaa ba damay liggéey feuille bi poudre bi am naa ka poudre bi mu ngi nii lii chips moringa la en même temps huile bi tamit am naa ko huile moringa lii samay confiture la papaay mu ngi nii am naa bisaab bi am naa confiture di tax yëpp mu ngi nii comme damay liggéey ci paañ

ñu présenté leen keccax mu ngi nii bii nag kenn lakk ko dañ koo tay voilà dañ koo tay waaw dañ koo tay bii boo ko toggee comme ceebu jën parce que lakkuloo ko comme ceebu jën bii paañ la dañ koo tay aussi pare weer ko bii mu ngi nii yoxos dañ koo tay tuufa bi dañ koo tay waaw tuufa la non non non bii aussi dañ koo tay lan waaw bi ñuy tay. bi moo dàq. ci guu bi ñun ñu koy togg di ko lekk. bi ñuy tay bi moo dàq. waaw te moo gën a set liggéey. mais du gaaw bi 6 mois. 6 waaw. bi tuufa la tuufa waaw bi aussi dañ koo tay waaw bii géej la amul xorom dañ koy raxasa ak ndoxu xorom rek ah, waaw ndoxu xorom rek weer waaw bii yéet la waaw ma ne ko bii yéet la gis nga woon amul xorom dañ ko raxasee ndox xorom rek pare nëbal ko trois jours boo ñëwee directement ci cin bi amatul raxas voilà loolu daal lañu présenté nag prince li ngay gis fii yëpp moo ne ci foire bi bagage yi bëri na comme niñ ko waxee filmeel ma ñu daal di gis naa fi ay ay ay saabu ñu dem jëli saabu yi jël tissu yi

ñu ngi si ñu ngi jàkkaarloog sunu moment yi maire nuyu nañ la. ñoo lay fay. waaw ñu bëgg nga wax ñu rek sa ndombal tànk ci foire bi. ah foire bi maa jiite commission expression maa ko jiite ñu di ci liggéey nag liggéey bu rafet ndax ah, madame moo doon koo xam ni dafa bëggul benn jigéen tëdd. dafa bëgg jigéen ñëpp di yëngu di ja am lu ñu yóbbu seeni kër. ci la nekk moo tax liggéey yëpp jigéenu Joal Fadiouth ñoo ko liggéey. produit yu yaañ yi ñu gis fii yëpp est-ce que si dëkk bi lañ ko defee réellement. yëpp ci dëkk bi lañ ko defalee biñ ñu formé ba dem dañoo toog di liggéeyaat suñu liggéey di ko jaay yóbbu nañ foiru Dakar tey dañoo liggéeyaat exposé fii. mun naa ne namatuñu Europe. namatuñu fenn fii lépp impact. ñu gis fi ay produits yu yaañ mu nekk consommé local mu nekk fierté. Euh, dëkk bi yéen tamit ngeen nekk fierté dëkk bi lan ngay ñaax waa dëkk bi. ñu gën a góorgóorlu gën a jàppale madame la ndax li mu yore ci ñun yàlla man ko koo egglaloo ndax xam nga ni ku yëkkati moyen yu ni teg sa loxo ja ku lay may jën na la jàngal li ngay nappee daf ñoo jàngal nu ñuy nappee tey ba kenn ku nekk mën a liggéeyal sa bopp ca gox ba nga nekk mën cee jariñu moo tax macha allah madame la ministre. am ngërëm cant rek. di kontaan si yéen tamit ñu ngi leen sant bu baax a kon nag moo ngi noonu programme bi day wéy di law euh, foire bi ku ko gis xam ne euh, produit yu yànji lañ fi présenté suñu yaay yi suñu tante yi suñu mag yi suñu jigéen ñi présenté ñu produit yu amul fenn kon nag comme ni ma ko waxee sànq nammatuñu Europe Prince Dame bu ko defee ñu dem rek euh, continuer festival bi programme bi bëri na ñu continuer ba tey rek. kon nag ñu ngi leen di béggee di leen di gërëm di leen di sant merci beaucoup. On